waaw xam nga bi président de la république Macky Sall département bi euh, biñ ma njëkkee la ci radio, yi dama ne man tàllal naa sama loxo ñëpp pour ñu waxtaan parce que ci waxtaan rek la ñu mën a amee solution. guerre mondiale sax ci waxtaan lañ ko autour d'une table donc nous ñu nga xam ne ñoo secteur bi ndax ñun en tant que représentant de l'État nous, en tant que représentant des travailleurs des collectivités locales ñoo bokk lu ñu bëgg li ñu bëgg le secteur bi dox secteur bi jëm kanam ñi fi nek yi di motiver muy agent yi motiver pour que nous gën a engager pour que vision du président de la république am par rapport aux collectivités territoriales ñu mën koo doxal yaakaar naa kon ñoo bokk lu ñuy lu ñuy dox xaj nag façon yi bokkul man damay yéeg dem kilifa pour euh, ñu nous ñu ñoom nag ah, dañuy gerew la am ah bu ba waxtaan am euh, mais nous bu responsable la nous profitons de l'occasion occasion vraiment pour pour remercier leen pour encourager parce que dajé nañu bu nga xamné bon même bu jubawul ci euh, d'abord lu am solo climat de confiance duguna suñu digënté ak ñom té tamit ay responsable lañ état li état man li état mënul xamnañ aussi li wara jall tay ak li